soxna ndax yalla ya mom man na no ngi sant mbooloo bi yëpp di siyaar nag sama rak ñu ñaawul ji di soxna ne njiital jigéen ñëpp di ko ñaanal sama borom bu loolu di ko tawféex ngi sant ñep di gërem ñëpp wa aaxiru daxwaana alhamdulillahi rabbil alamin dañu nek ci ay te am safar bo xamanteni ni bañ joxe rendez-vous bi yag na ci samedi ji tay yalla xam na ni mënu ñu wona gënt mënu ñu fay jaar motax ñu ñëkke fi bu ñu jógee fi fa lañ jëm noo ngi ñaan bu baax sama borom dolli xewal sëñ taala siyaar na la bu baax a baax a baax Mouhamed dangaa yeex a ñëw maa ngi nuyu jërëjëf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 خديمك الذي قبلت الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيت الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيت الملام صلى عليك أبدا سلام في الآل والأصحاب ربنا سلام خص مقاما دون كل مقام يا نور كل يا عابد سام وقام خص مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أرجنا من الظلام عليك بالقلم بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والأمم بك القيام دسالحين بزمام لك لدار بالورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع ترام جاد لنا باخ تمالا أمنام بك فانت سيدي خير الأنام نويت شكرا عليك كلام وكل صار والكتاب الإبداع نويت زور عليك بخلال يلا بالمصطفى سندي الله وبخليلك رحيم يا الله يلاو بالمصافى سندي الله وبي رحيم يا الله يا يلاو بالمصطفى سنديد يا الله وبخليلك راي ما يلاو وبخليلك سزاليخ القدير وبزعيب الوالد ما يا الله وبكلمك سزاليخ القدير وبزعيب الوالد ما يا الله وبي سليمان نخر يونس اليا أصل أموري كسر خيوري بلا كداي يا من أجاب من استجاب قبل إجابة في سنداي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي صفي اللغاي يا ذا الوجود يا ذا الوجود كل بجودي بلا انتهاء صفي وصولي بلا خفولي لجود بصولي جمر داي قبل تلاوة ما لا لاوة قبل دراية لدى لداي خلي دراية ما لا دراية لا لا لا أصلا غالي بالأرض غالي بغدي غالي بلا بقاي لقبل مدابي وخمي جنابي وسما بي جوي زكاي خن الخرورة وامخل الخرورة قبل النزورة ما تكاي خل النوال ينمي كمالا يا من تعالى أنصرك زدت ودايا خدت دايا لبردايا دون زكاي يا خير موني أغنى بماني علي حزني بلا لاي لك سكوري عند ديوري يا ذا الخزوري بلا جلالي يا مكزاني يا من زغاني يا من غماني عن الغلاي يا من زغاني يا من زغاني يا من أماني عن الغلاي يا من غزاني يا من زغاني يا من أماني عن الغلاي أنت مرادي أنت إمادي نوير فؤادي يا سدياي زوزات عيبي أزبت ريبي تهرت جيبي ان خيت سيري تيبت ميري كل بخيري دقياي يا خير مغيب كن لي برغي وخير سعي كالاسكياي خبل استقامة خن الملامة خبل الكرامة بزل واي خبل استقامة خن الملامة خبل الكرامة بزل واي بزل جمال بزل كمال بزل مغالي بزل دواي بزل باد بزل فادا بخريادا للأولياء بزل نوالي ليس القتال مرد الرجال على زخياي بزل زاب زوي الجاي jaalil kaaba zawil diyaayi bisi saxaaba zawil diyaayi bisi saxaaba zawil diyaayi bisil xuróobi jaalil xuróobi noori laribi maxriyaayi yaqul abdullahi wa huwa xadimu man sumaato muhammadu bés la bu ñuy waaj a màggalu sëriñ bàmba gi waaye fas yéene ci ànd ak Baye Ass Ngom moom sëriñ xaadim loo gaydel borom ndaam sire xuja kumba gaydel alami ci ndaam surtout sëñ isa bi ngir album bu bees bi nga xamante ni bii moom la génne tey ñu fas yéene def sortie officielle bi di ndokkeel bu baax ñu ñu fekk ci jotaay bi sunu yaay soxna madame Camara du Président du mouvement qui la bok le président de Dieye di agent de santé bu mak ñu ngi koy ndokkel bu baax muy collègue ci télévision Thiès TV di ndokkeel it bu baax kenn ci ñi ñu dara jaale bés bi egsi muy soxna Wuli Mata mu di jigéen ju baax joo xamante ni bii moom lañu jël bés bi dara jaale ko ko ci wàllu jigéen ñi waaye dañuy jox kàddu gi rek ñi nga xamante ni bii mooy waa kuréelu waa kër borom ndaam ñu fa yéene ñëw ànd ak ñun ci guddi gi fas yéene ñëw ubbil jotaay bi waaye du ndokkeel média bi nga xamante ni bii ñoo fi teew muy lamin bu télévision Thiès TV ak morsi bu Carrefour Média bu ko defee rek kuréel gi lañuy jox ñu ubbil ñu jotaay bi ñu fas yéene wéyandil guddi gi ñi nga xamante ni bii ñoom lañu ñu dara jaale guddi gi am na ci ñu bari ñoo xamante ni bii fas yéene nañu yegsi ci guddi gi ku ci mel ni docteur Djibril Sarr président du mouvement And moom it parrain la ci bés bi ki nga xamante ni bii mooy Demba Niang moom it parrain la ci guddi tay gi ak ñeneen ñoo xamante ni bii ku ci mel ni Abdou Karim Seck ak ñeneen ñoo xamante ni bii bu ñu egsee daañu ci àndandoo ak yéen ngir faj yéene leen dalal suñ xaadim bu fekkente ni bii kuréel gi egsi nañ rek ñu jox leen ñu faj yéene àndandoo ak ñun ci guddi tay gi waaye ñu ngi dalal soppe yeeg mbokk yeeg xarit yéeg ñépp ñi nga xamante ni bii teew nañu ci guddi tay gi. أحمد خير العالمين منها مني هداية وهداية امتنها لم ينخني وليس ينخني المرار ولا غدا ولي ينخاد المرار الإله وحياة لي ليتواجه إلى الجنان توجه الخلق لأوجال تهيد جعلني الله تعالى آية معجزة ولي قد الآيات هبات من يمل ما شاء لمن ساء ما نعم سقات زمن هبات من يفعل ما شاء لمن سام لهم سقات زمن هبات من يفعل ما شاء لمن سام لهم سقات زمن أخببت رب العالمين مهلا وانغاد ذكر الأمير لقلقلي وجزادي أبد رب العالمين مهلمين والأمين وانغاد ذكر

ولدي إلي غاد في سفر اللي وخيب بسفر مسانيا هنينا فرد بجوده في قلدي لم يغني ذي الغالي لم يغني من يدار أو من ليس تريم أنوار

Shakira سرمدا على من بمسير مع الأمن والبشر فراري بالمعتاد من قبل المريم كنت بارمي ci kàddu gi Baye Cheikh Abdou Karim Mbacké borom dindi makaariman axlaa di ndokkeel bu baax Serigne Abdou Karim Seck

ndax buma ma daanelee kàddu gi sëriñ Atumaan lay jox mu ñëw zikaral ñu dalal ko bu baax ak délégation bi mu àndal yépp waaye it dalal bu baax a baax soxna Wuli Mata faal mu baax mii nga xamante ni day nit ku baax ku bari valeur di actrice de développement di opératrice économique di jigéen ju jàmbaare joo xamante ni bii lépp loo ko woo ci liggéey Serigne Bamba bi muy si la ki nga xamante ni bii ak bëggam ak gëmam ak dalluwaayam ak fi muy waaje du fenn fu dul kër seexul xaddim ballay sibréeg sëñ mbàkkeeg maaram rakki maam moor jaara sëriñub Ceerno Birahim ndaama la ca daaru góor gi semmal fuuta gàgganti gànnaar bàyyi basak baara maam yi dënn ak seex bàyyi sëriñ saaliw mbàkke borom xel koom jaaga yaakaaru serigne khadim lo gaydel borom ndaam sire raxu jëkkum mbaa gaydel alami ci ndam soxna wuli mata ñu ngi lay dalal bu baax kàddu yi ñi wax yépp mi ngi jóge nak ndeysaan kàddu yi wax yépp mi ngi jóge ci ñi nga xamanteni bi moy wa waa daara ji ak bay as waye di ndoké lit mboolem ko xamanteni bi andu nga ak délégation ñëw ci bisu tay bi dañoo jotagul feuille yépp rek waaye jàppale ni ñu ngi dalal ñépp ci dal bi gën di leen ndokkeel di leen ziyaare ci weeru tedd bi di weeru safar bu ko defee rek sëriñ aatu mën naa jege ci préparé mook ñi mu àndal ñun ñu fas yéene wéyandil guddi gi waaye di leen fàttali tey mooy sortie officielle bu album bu Baye Ass Ngom Zikroulah muy album bekti mi di album bo xamanteni bi mi ngi am sept titres yo xamanteni bi titre bu ci nek titre légende la titre bo ci deg mu gëna neex morom ma lépp nak mu delu diko sante wat waat yaakaaram borom bax daat Serigne Khadim Lo gay del borom daam ndax bokk na ci titre bu njëkk bi daf ko jël. jël ci ñetti taalifi borom ndaam def ko muy benn way ci kanam tuuti daañu ñëw ci titre yépp ari indam mamaatina wa fi nusoori wa wa bi suroo مماتنا وفي النشور وصليا وسلما على نبي وآله مع صحاب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة سياب يا سمير واغفر لكل ذي تعلق بيا واقعا سعادتي يا ربي يا وتوفنا وخوينا وكلنا وعبلنا لنا الختام ربنا وتوفنا وخوينا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقدمي حاجة كل مسلم وصلي على النبي وسلم واقدمي حاجة كل مسلم وصلي على النبي وسلم وقد sira xuja kumba gayndel falo xuja kumbolo ale ale ale ale matanam ka saytoon baxdaat mooy baayu Moustapha mooy doomi faalo faalo xuja kumba gayndeel borom ndaam man duma jaawaleek moom ay borom ndaam siro xuja kumba gayndeel faaya muy baayu Mustafa muy doomi Mustafa siro xuja kumba gayndeel borom jumaa ji ci Tuuba kon ay borom ndaam tey ma bakk laa xiin ku yaakaar gayndeel borom ndaam tey ma bakk laa xiin ana soppuy sëñ xaadim borom ndaam tey ma bakk laa xiin ku ko yaakaar jugal jaayoo tey ma bakk laa xiin sira xujooku mbaaga yi ndeel tey ma bàkk laa xiin kono bëggul kono bëggulee ye bëggul wurus bëggul xaalis kono bëggul kono bëggulee ye bëggul wurus leen bëggul su xaalis lu aale bëggul kon bëggul yéen bëggul su xaalis kon bëggul xaalis say xaadim lool say ma bàkku laa xiin si xudu kumba gaynde faal loo xudu kumba say ma bàkku laa كن بقول كن بقول ايه بقول رسول بقول خالد كن بقول من بقول ايه بقول رسول بقول خالد جدل برم نام تم بقول تري أبو رجال لا يفعل مام سيرفال توري توري يوا أنا واقع شيخ إبراهيم فال Tell me about to Cream. la songe xeex dinga dem ba nga dugg ci lislaam ba nga dem ba maare ba nga dem ba maare lay lay la lay lay la ana soppay Sëriñ Saaliw ngay xeex bu nga dem ba nga ci lislaam ba nga dem ba ma leer yeegi man way na loola lu ale ma candaame borom leer yeegi man way na loola xaadim borom ndaame naar yaay dapp njaaye borom saame man way daalo yaay jàmbaar baaye sëriñ Mbàkke Madina sëriñ Mbàkke Madina woo borom leer yaay si maaray sama yaakaari Seex Bada Njaay sëriñ Mbàkke Madina woo way naa lay si maaray sama baaraam ba oh. ki Madina borom leer yeeyi man way naa waaw sëñ baaraam baax way naa laay sangub Seex Bada Njaay ay jambaare waaw oh. sopp Serigne Saliou jug leen taxaw ku ma soppal Serigne Saliou jugal taxaw Serigne Khadim borom daam jar na ko Serigne Khadim borom daam jar na ko lu ale ma ca ndaam jar na ko Serigne Khadim lo yaay jambaare ñu tere yalwaani yelwaane ana ko sopp sëriñ saali ooy mbakke ku fi gën a bëgg sëriñ saali wu mbakke dangay dëkkee muñ dëkkee muñ dayloo yàlla xam laa yi amul feneen aa ah, ah, ah. xam ngeen ni maam yombul wuyee lii de metti naa moo tax ma ni ko dëgg-dëgg yow laay way dina taane saa maa ko yaakaar sëñ jugal jaay turi dugg dugg yow laay wéy taan saa sëriñ Saliou dem na ndongo yaa ngi jëy Sali xaadi ween nañu ay waay sunu mam jee sunu kon ku la ñaaw waa dina maa ko may wàggal Cheikh Mandou Mbaye suñu Xaadim Njaay sama papa jooju Cheikh Mandou Mbaye xaabaan borom kaa digga dende ku la ñaawal ñaaw ku ñaawal ñaaw fii fi ñaaw fii daa fii waa na soppi yaa rasuulallahi ku mu jaaral lu tuugal magal ko lo ale ay ma jandam Cheikh Modou Kara ndamal daaro ndayan awa balla ya ma jaral la sango Cheikh Mahmoud borom begere Cheikh man begere ya ñu jaral la dama lay way ba dugg ci biir Sëñ Bara Mbàkke yaa ñu jaaral le ay borom sañ-sañ bi yaa ma jaaral le yaay borom ñaaf yaa ma jaaral le Sëñ Xaadim Lo gayndal borom ndam kon mosa waa kula mosa ñaawal ñaaw ay xutbul xaafixiini waa na taalibe seex yi wala fii moo lay taalibe seex kon di jë nañ ko yemale foofu xam nga ana taalibe seex yi ñëpp toog kon day mel ni taalibe seex amu fi ah. xutbul xaafixiini xutbul xaafixiini baynal masriixi yaa déggal yàlla man daan nga seede loola mbay daan nga ma mbay daan nga yàlla man daan nga loxo yàlla la jox ma yàlla la jox ma yàlla la bi far la ci xoolam Cheikh Tidiane nga daan nga seede loola yaaleen man doon nga Coro Khalifa di Gaynde Njaay mam yaa di Gaynde Njaay Khalifa di Gaynde Njaay ku ko loo ci dugg man daan nga seede leen loolo mbay daan nga mam mbay daan yaaleen yaaleen man doon nga te kii mooy xutubul xaafi xaynin xutubul xaafi xaynin xutubul xaafi xaynin wal maxril mayten aali bu daabin penku ak sowu siin يد تريخاب يسن دينجم يدن مودس أنا واكر سني بابا كان كم جارل توغل داخم أنا واكر سني بابا كان غورغي ندار ندلدان غورغي آم مام باي إيه مام باي ah maam mbay eh maam mbay ay duñu saagan ay duñu saagan ay duñu saagan ah duñu saagan ay ku fi saagan wax leen jàng bari na wuy alaaji jàng bari na wax leen jàng bari na woolu doon na war ay waay sikar woolu doon na war ay waay mbayooy mbayooy mbay xalifa yaay dafa bi jublu yàlla ak moom la maa ngi koy ñaanal ci barke Sëñ Tuubaa barke xaside yi mu yàgg fi lool ba li ma bëgg ci moom suñu borom defal ma ko ba mu defal ko ci barke xaside yi aw ma lu dul moom barke Sëñ Tuubaa di nuyu suñu kilifa yi fi teew yëpp suñu bàyyi as ngom zikru laa waaye di dalal bu baax a baax monsieur Abdou Karim Seck mu baax mii wax naa ko léegi muy nit ku baax koo xamante ni bii loo ko woo ci diine ji mu wuy si la nit ku mën a taxawu doomu adama nit social la moom nga xam ni moo jiite mouvement dekkal cosaan ànd ak sëriñ Moustapha Kane mu baax mii nga xamante ni bii moom it day nit ku baax ku bari valeur ànd ak ki nga xamante ni bii mooy Serigne Babacar mbay soxna Awa Diallo di suñu xarit ànd ak Saliou Diop président bu Ravage ñi nga xamante ni bii ñoom saa yu màggalu Touba gi jotee ñoom duñu màggali fii la ñuy màggale képp ku sa oto paan ñoom ñoo lay taxawu jàppale la te doo ci fay dara may ñaan ngeen tàccu ma leen bu baax a baax a baax di ko def ngir liggéeyal Serigne Bamba bi ànd ak ki nga xamante ni bii mooy Ndiasse jeng ñooñu ñëpp ñu ngi ànd ci délégation Abdou Karim Seck bi jërëjëf papa Abdou Karim yàlla sa jàmm yàgg lool waa mouvement ànd soppi Thiès bu ma jaxate ñaa ki leen fi teewal mooy ki nga xamante ni bii mooy Moussa Ba di secrétaire général bi Demba Ñaa moom it di nit ku baax di nit ku yàlla baaxal nit ku bëgg askan wi nit ku taxawu askan wi moom ci délégation ràññee nañ ci Ajuma Saw ak Fatoumata Ndiaye ak Ndey Njéeme Ndong ak Ndey Saar ak Maam Jaara Ndiaye waaye ki nga xamante ni bii moo jiite Teranga business automobile waa kër borom ndaam muy sëriñ sàmba Diop mu baax mii nga xamante ni bii surtout Lat Dior Kuli Diop la surtout suñ kokki njaga isa jéey borom leer gi baawaale kokki yokku ba màkka Abdoulaye soxna ñaan ak Medoune soxna ñaan Balla soxna ñaan Matar Numbe soxna ñaan kooku tamit moom it yëg si na ci jotaay bi di ndokkeel ki nga xamante ni bii mooy soxna ndeykan di yaayu jëwriñu jigéen ñi moom it mi ngi nii toog ñu ngi koy ndokkeel bu baax wax naa ko léegi soxna wuli mata faal waa damaa gisagul ak jugam rek waaye boobu ba tey maa ngi koy tudd egsi na ci jotaay bi ñu ngi koy ndokkeel bu baaxa a baax baax baax moom tamit Baye na kontaan na ci moom waa daara ji bëgg nañ ci moom sëñ Fallou Baxdaat mën na ñëw moom la ñuy jox micro bi waaye nag jàmbaari lislaam ji jàmbaari diine ji Cheikh Bada Ndiaye kéemtaan ki nga xamante ni bii aleri Serigne Bara Mbàkke la ki nga xamante ni bii maa ni ko boo jaloon sa jal bi fii ci Thiès li ku ma mas a may bu ko laal loxo yi koy laal du bari kontaan nañ ci yow bu baax ci jël gi ñu la jël def la invité d'honneur gi nga ñëw taxaw leen nee nañu yàgg nga leen jàppale yàgg nga masaabil walla tujaa ألف لام إنما شاكل ولا تجادل الله من كل كريم أكرم من من خاد الله تكرم حسلم لها كل كان إيماني واللازم صنمي رحماني وجه بي شكري بلا كفران تفعي شاب مونيان الحمد لله سند في سخي بامبا تي ماغل الشيخ احمد بامبا خادم رسول ngir moo taxaw julli woon fi ndar ban sañ ko tey alhamdulillah ñuy sant fii Seexi Bamba tey ngir moo taxaw julli woon fi Ndar ko tey rakkam ya mooy suy taas ñun mooy dox ba tey màggal ko moo di war ci ñun di ko sant tey bureau bi moo timbar ya fa jaar ba way ku ci dul sëriñ tuuba keroog si nga ngay soldat waatir bi naa keroog ñëpp a xëy kañu naan borom ndar ñëw taxaw di ku yàlla jay ma nga mette naan len medd maay sin yàlla tey kun woo keroog présent nga wax mbaane nga wey mu ni leen ba leer islaamu fay bu mu weesu tey tas jàkkeeg seen bu ma kenn lay ku nooma rey ku ni may ku mu daadi islaam di jooy foofee ba xëy doon waaje way bu doon tuuba ku sopp borom tuuba bu doon tuuba ku sopp tuuba bu doon ak tey xawlan wa fixlan moo waral ñuy bamba tey bu doon tuuba ba tey jullikaay fay kon santamar kuy woote tey soo ba ba ku fi xam keneen ku fi ñëw te jaar fa mu jaar ba wey ku ni mel amul fii ñul ci ñi du ca gaañewey bi muy tàmbali bañ yaa ngi reetaan naa lii du wey ku ko njortu woon dariri mbir tuubaa ngi tey tuubaa ngi tey ku ko réerewul muy ngën gi lay ko suubu raw Cheikh Bamba kenn du ko suuru tey islaama ngi Cheikh Bamba mooy ki ko doon tey ngir ma ko ko tele woon ba ku nekk jot ci tey ridal yi laaw halal xadiimi di yàlla may wax leen jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Borom Touba jërëjëf Serigne Touba sa jëf la la yàlla fay sëriñ dem na donga yaa ngi jooye bañu saal xajoon na fi sali xaadime nonoy ma jooy naa la yaa ma saaliw magal sëriñ saaliw Mbàkke na ko de ay waay ndeysaan

حجنا فيه أيوه Ah. sunu xarit jooy naa جن فيها لصال بايو سري شيخ ساليو ميكوت ياتال ام جابور جي لي برافه بايو شيخ مرتلا جاتي فيها borom yi njurul njëkk njël ba nookaan ñëpp a ngi nanu maga sëriñ Saaliw ku sopp sëriñ Saaliw ku sopp sëriñ Saaliw ku sopp sëriñ Saaliw ana sama sëriñ Saala mooy sunu maam di sunu xarit jay naa la yow sëriñ Saala waaw Baay Saal xajoon na fi non non ñoo ngi jooy ay waa jugal taxaw màgg Serigne Saliou Mbacke jar na ko ku sopp Serigne Saliou ana soppe Serigne Saliou ana soppe Serigne Saliou ana soppe Serigne Saliou ana soppe Serigne Saliou ana soppe borom ndaam lo bu ma sobal borom ndaam lo bu ma sobal borom ndaam lo ana soppe Serigne Saliou mooy sunu maam di sunu xarit jooy naa ma saa waaw xojoo na fi ذنوبنا اجعل سلامتنا تدوم يا سلام يا ولي الخيال في دار سلام وصوب سرني خادم لو سلخو جاكو وصوب قيدل برام دامو جوغل ينغو وصوب قيدل برام دامو جوغل خبدا يا بغ سرين بارا mami sëriñ Mbàkke Madina yaaram la ku sopp sëriñ Baara jugal màggal ko sopp Sëriñ Bara Fall ana Baay Faal yu Seex Ibra Fall ku sopp Seex Ibra Fall Ahmadu Fall Sayar Njaay ñun de yaanu moom Biram Njagu ma canga ñun yaanu moom góor dëgg baayu jee maamu Seera Fall góor dëgg baayu jee maamu Seera Fall ku sopp Seera Fall jugal màggal ko sopp Seera Fall jugal màggal ko sopp Seex Moodu Maam Marema jugal màggal ko sopp général Kara jugal màggal ko moo bari doole jëfaa yaaram di tuubaal di jégalu bu baax a baax a baax lu ñu mujj ni sax moom la ñu waroon a njëkkee di siyaar suñu jëwriñ yi fi teew yëpp di siyaar suñu sang ba ca baxdaat si réxu jëkkumba gaydal alimi ci ndam ñun suñu borom dañoo nattoo leen ñun lu ñu mel rek ku ñuy bëgg wala ku ñuy yéem rek tiituñu ko wax fenn sëriñ xaadim loo gaydal borom ndaam la dëgg la amaana daanaka li ñuy def sunu deret la nekk waaye dañoo jël loolu lépp teg ko nee ndax Serigne Khadim Gaydel lu ñu mel moom la kon nag dañuy wax ku fi teew rek na nga wax ci kaw sëriñ xaarim Gaydel yàlla na fi yàggul lool te ànd ak wér dégguma dara xanaa ay taalib lañu fay nekkul Serigne Khadim Lo yàlla fi yàggul lool te ak wér sunu jër yu Baye Ass Ngom ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci bis bi di la ñaanal li nga ci yéene lépp Serigne bi defal la ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaajëf ñu ngi jégalu bu baax. Serigne Fallou baghdad ñu ngi djeglu bu bax ku ne xamna programme ni mi démé bu doon sunu sago sax batou la ilaha illa illallah muhammadu rasoulullah bi duñu ko dag ben yoon waye ku ne xam ni ni le programme di démé ñu ngi may yëgal ni. ñi nga xamante ni bii ñoo fi teewal ku tedd ki sëriñ xaadimloo Gaydel borom ndaam muy jëwriñam yi nga xamante ni bii bu ñu teewee fii mel na ni moom moo fi teew muy ki nga xamante ni bii mooy sëriñ Omar Mbodj ak ma Massamba Ba Serigne Harabi jàlloo Dabakh Faye Ousmane Gueye Moussa Niang muy ñi nga xamante ni bii Serigne Khadim Lo Gaydel lañu fi teewal. ngir taral jotay bi gunge len magal len ñu ngi len di ndokkeel bu baax di len wax ni gis nañu taxaway bi ki may bëgg duggal moy jambaari Serigne Khadim Lo gay del borom ndam ji ambassadeur Serigne Khadim Lo gay del borom ndam ji ki nga xamante ni bii fépp fu mu taxaw day représenter Serigne Khadim Lo gay del borom ndam ana ñu bëgg borom ndam Eh, déedéet dama bëgg waa kër borom ndaam yépp jug sargalal ma Baye Ass Ngom ci album mbégte mi nga xamante ni bii moom la way Serigne Khadim Lo Serigne Khadim Serigne Massamba Diop borom teranga business dafa ànd ak doomu ndeyam Lamine Diouf jërëjëf Cheikh Bada Ndiaye kéemtaan alalu sëriñ bàmba waaw moom ñëw na wone na ni wax lu baax may jërëjëf. waa koñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi ci jàppale gi waaye ci soutenir bi ba lii nga xamante ni moom lañu amal tey mu yomb lool kon ñu ngi leen di ndokkeel ak arrêt Jakarta bi yéen tamit yàlla seen jàmm yàgg lool. nee na lu ci ëpp ci seeni programme teen jàkk lañ ko daan defee waaye bëgg a yaatal liggéey bi moo tax ñu àndi ko fii ci robinet Lamp Fall ànd koog suñu mbokk Jakarta yi. ak waa koñ bi yépp xam ni liggéey bi nekkul ni teen jàkka rek layam fépp lay yaatoo ndax loolu la sëriñ bi digle ñu yaatal daara ji ñoom bi ñu dikkee tijjil nañ leen seeni bunt seeni kër ànd ak ñun liggéey bi cat ba cat kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ni lii rek mooy liggéey bi kon jërë ngeen jëf ñu jox Baye Ass Ngom Zikroulah mu fas yéene ànd ak ñun ci jataay bi alaaj daam saaxoo ngoogu di si ñu ngi koy ndokkeel di ko ziyaare muy sëtt suñu maam Baye Ilimane Saaxoo la di ñu fàttalikuloo suñu borom te di ñu delloo ci buur bi laahu rabbana troisième titre bi di sababu haybati yaa analaaha quatrième titre bi di hommage à Baye As Dia may ñaan kenn ku ci nekk ñaanal ko mu nekkoon taalibi Serigne Khadim Lo Gaydel borom daam titre bi di Gaydel Murid Sadix nga cinquième titre bi di Modou Mam Mareema ndaamal daaru samaam la sixième titre bi di Baye Fall Cheikh Ibrahima Fall waaye nag septième titre bi mooy xaaxlu bi xanaa loolu neex na li ma bëgg nag mooy te loolu la bàyyi as bëgg loolee moo waral lancement bi alaaj daam saaxo ñu ngi lay nuyu dijee nga ñëw ci son yi kon dijee yokkal ñu son bi bu baax a baax mais son yi li ma jàng xam naa ko temps bi ma ci def xam naa ko ndox du ma jàngkat bu ndaw hmm? sëriñ Xaadim Lo Gaydel mu ko wax démb ñu ngi toog ak gaa yi munoo képp ko génération koo maasel jamono doo moroomam ci sikar man sa sikar may daaneel bi ma koy wax gaa yaa ngi toog loolu sant yàlla la te lépp moom la di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te mu ànd ak wér li ma jàng ci kaset bi musuma koo jàng ci kaset du caage ni bëgg gaa yi jël ko nii déedéet bu ko gaay jëlul ni ba génné ci biti nit ñaangi ngi taxaw ci biti di ko xaar barké Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu rasoul lolu serigne bi defal namako di ñaanal serigne khadim Lo mu yagg fi loolu te ànd ak wër ndax lepp mom la fofu dal la ci yam ndax ret tay dama am yéene sikkaral ñepp ba ñëpp ñu dogo jublu ci ci ci ci cassette bi ñu way ko ndax so gisee ma génne album ren dama Tabaski dafa waajo ñëw ma damay génne single jox ko mbokki taalibe yi ndewenal ak soppe yi yàlla dogal sunu waajur di taalibe sëriñ Xaadim Lo Gaydel di sëriñ Aline Dia ñu gën koo xam ci as ja dal ñuy jiitu daal di génn àddina ci jamono yooyu ma ne kon loolu xaju fi dinaa ko puus donte sax dina metti waaye looy dox ci ku tedd ki du metti ma puus ko ba màggal def ko album yok ko man ci beugal mbokki talibé yépp ak julit yépp lolu mo waral album bi mo tax ñu tuddé ko albumu mbégte mi di ñaan rek mbégte mbégte murid yi rek lañ ci sakku di ñaan yàlla na nu dal ci barké ku tedd ki té dañu am yéné sikar wax ji warul bari lolu la waxon mbokki talibé yi sikar rek ba ñëpp bég ñu dogo jublu ci kasetu mbégte mi jangal ko mbokki talibé ba ñëpp ci kàttanu ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba xadimu rasul xarxala Muusa Muusa xadimal xadimo xat xaala muusa xaadimal xaadimoo li man hawaata sexinal xaadimoo xaala muusa xaadimal xaadimoo xaadimal xaadimoo sexinal xaadimoo yaa حلم خروج شيخنا الهديم حلم الخديم شيخنا الخديم يا ديوان محمد المكي ما فيها بلسي أحمد المكي يا ديوان محمد المكي bala si ahmadul makiya ahmadul makiya ahmadul makiya géej gi fer ba tey di baawa labe ya naan ko Bamba yaa di ndaana ba tey di baawa Sëriñ Musa Kane keroog la géej gi fer ba tey di baawa labe ya naan ko Bamba yaa di ndaana baya di daanaan xeralu leen ma kañ fi seexana la xadim mi yàlla xëy tuddee ko Axmadul Xadim seexana al xadim mi yàlla xëy tuddee ko Axmadul Xadim

وذهبين غيلا وصليا بتسليم علي به وريروها بريحان يلا juróom ñetti fan lañu wax di àjjuma far ci maamu koor li la mawlid wax fa yàlla biir xemem goyalaaw keroog xunay na naa faatu ngir ku bëggoon leeru muhammadu abdullahi yallaaw mas naa digal baayam ba jiiban jox junni buruk diggante xaalis ak urus ak jamaaya mas naa dëkkal baayam ba jiiban jox junni buruk diggante xaalis ak urus ak jamaaya yallaaw bisi bisi di jooy di xemmem taar ba sarax way jël way jël ma Abdoulaye yalaaw du keroog lañu waajal soxna Aminatu jébbal ko sangam ba Abdoulaye yalaaw la àjjana waaj nim jànq sol am duniyaa ndox mépp saf lem wóor na yalaaw yu ba dem ci yu ma waxala faleer ak ca awala sooga ñëw fil kaw ni yàlla bur yàlla bind na leer ak Moustapha te bind fi mulki wal malakati nu dara yàlla leeram nga jiitu na leeri téeméer Bamba yàlla baye Cheikh Bamba yàlla woo gannaaw ba yàlla baye Cheikh Bamba yàlla woo gannaaw ba yàlla baye Cheikh Bamba yàlla woo mu jub rafet la ni ñaan Cheikh Bamba yàlla bihi profet la ni ñaan Cheikh Bamba yalla soppu mujj profet la ni ñaan Cheikh Bamba yalla nga Muntaxa nga yàgg fi la ñuy ñaan Seex Bamba yàlla nga yàgg fi la ñuy ñaan Seex Bamba yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah war na bépp julli la ilaha illallah yokkalal gaay rajo yi war na bépp jaam la ilaha mbay damaa bëgg xam kii njëkk a jënd waaw kii njëkk jënd cinq personnes yi njëkk a jënd ku mu neexit bu la neexee jënd cinq may say ñooñ waaye liñ nga ciy jublu mooy jàppale Baye Ass ndax fent way rek dafa metti boole koog nit ñi di nelaw ngay fanaan studio boole koog sonn ci damay tudd tur kay ndax man ñime naa ñime naa sama papa docteur Djibril Sarr ñime naa ko Virginie Thiam xam na li ma wax ñime naa docteur Djibril saar damaa xamul ndax benn lay jëndam ñaar ñime naa ba Cheikh Bada Ndiaye kéemtaan alalu Serigne baara Mbacke ñime naa ko ndax yaakaar naa ni bi mu fi duggeeg léegi li mu fi joxe ci teraanga rek jënd na cent cassette kon ñime naa ko moom xaw ma benn lay jënd xaw ma ñaar ñime naa it soxna Wuli Mata mii donte ko ba tey jugagul waaye ñime naa ko xaw ma ñaata lay jënd. jàppale leen Baye Ass fentu waay rek dafa mett dëgg la Talla jërëjëf CD yaa ngi nii mën naa tudd tur ñu jënd ko buñ ko jëndul suba ñu ci biti jënd ko Abdou Karim Seck barke Xaadimu Rasul buñ ko jëndul fii suba ñu ci biti jënd ko kon nag wax dëgg yàlla lii ay wayu Serigne Xaadim Lo Gaydel laa jël daf ko benn morso loolu jar na lu ne loolu jar na lu ne de 3000 la bëgg ñëpp am ko li ma def ci keset bi. kon mu des. jëlal jëlal jëlal fay mu des 130 mu des 130 mu des 130. muy ma xaadim fexeel ma am ci benn xaadim xaadim bu ma yóbbu rajo xaadim. sama gars yi balaa maa tudd tur ñëw leen jënd kaset bi wala ma tudd tur wala ma tudd tur joxal xaadim vingt vingt yu seex ba day waaw sëñ xaadim neen du joxe guli day bàyyi ba gars yi jënd kaset bi gars yi yëngatu guleen de bàyyi aas bi jàppale leen bàyyi as fent waay dafa metti ñaan gi yépp nag jënd moo ko gën jàppale ko soxna ci am jërëjëf docteur ñëw na yàlla jàmmam yàgg jërëjëf bi yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sëriñ xaadim Gueye delloo di ñaan yàlla sama borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba liggéey bii muy liggéeyal sëriñ Touba. mu am ci lu kawé ak njortam te ñu yagg ko and ak mom yagg di am ngeureumam ni mi amé ngeureumal Serigne Touba di siar tay ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaha mbacké di khalifa général kullu murid, di ñaan yalla sa borom yagal ko fi lol te mu ànd ak wër di fal, ñaanal Serigne Amdi Fall mom Serigne Modou Fall di ñaan yalla sama borom yagal ko fi lol momit te mu and ak wér di jitalat ci nuyo bi sunu kilifa di sunu xarit di sunu lepp muy serigne cheikh Bada ndjay kemtan di bay faalub serigne bara mbacke serigne bi ñu ngi lay siaré bu baax ndjay te dila jox sa way ndax mom ni rek la mel ak ñun muy doon diruk du ne sax ndaw ndax moñu mak fuf ci ay at waaye dem na ba mel ni ñun ak moom ñoo maase ndax cër bi nga xamante ni yàlla sama borom dogal na tey mu nekk ci moom muy cërub sëriñ baara giñ naa ci cheikh ahmadou bamba xaadim rasuul waxuma la man mii nga xamante ni mu ngi may woowee ab xarit waaye mbooleem koo xamante ni mbokkub taalibe nga soo ñëwee ci moom doo yég ni sax cër boobu mu ngi ci moom barke cheikhul xaddim doon koo xam ni jën jëmm la ci ñun man mii li may doon doon ndaw barke borom Touba kenn xàmmewul sama alal ak alalam oto bii gaare moo ko jënd may ma ko barke Cheikhul Khadim ke loola maanaam lu ma fa fu ma yegg ak moom la te bu ma ko defalee waa kër Serigne Khadim Lo Gaydel yépp la ko defal doon ku bëgg sëriñ bi ndax maak moom li ñuy toog di waxtaan ci Serigne bi du benn du ñaar du ñett kon lii nga xamante ni tey mu ñu koy defal fu ñu mën a toll te tàyyiwul ci sunuy bis te doon ko xat lool te ma xam ko lool barke Cheikhul Khadim kon Serigne Bada. nii mu def it waaw bind na ci way sëriñ Serigne Khadim Lo Gaydel barki démb la daan wax la doon wax Bayaas Ngom jëwrin Omar nee na nit ku baax la mu ngi noonu jërëjëf <laughs> mu ngi mel ni kon jëwrin Omar bu waxee loola rek mel na ni loolu moom day mel ni kàddu sëriñ bi la ndax bërki démb bi ñu toogee sëriñ bi di waxtaan ak moom bi ñu ko tuddee Serigne bi loolu yi la wax ci moom kon ñu ngi santaat bu baax te di la ñaanal. li nga bëgg ci liggéeyu Serigne Touba beeg jaare ko ci sëriñ Baara yàlla nga am ci lu kawe sa njort ñu ngi lay ñaanal yàlla na sa borom guddal saw fan te wéral say cër lépp loo bëgg ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Baara nga am ko ci barkeb Cheikhul Khadim sant nan bu baax ndax taxawaay bi rek doy na sëkk ñëw taaral bis bi ànd ak ñun bis bi doy na ci ñun sëkk bëgg gi nga bëgg sëriñ bi li koy waral mooy kaset yi bàyyi as ngoom génne nga mën caa génn jënd ca daal ni jofaat naa ko addiyee sëriñ xaadim loo koy del bu la neexoon ne def naa ko addiyee sëñ Touba waaye cofeel gi nga am ci Serigne Khadim Lo Gaydel moo waral nga ne def naa ko addee Serigne Khadim Lo Gaydel kon Cheikh Bada ñu ngi lay sant bu baax di la présenter suñu dëkkandoo di suñu xarit di xaritu Serigne bi muy docteur Djibril saar mii ndax moom mii kat day jàmbaar ci kër Serigne Khadim Lo Gaydel ànd ak ñun lépp nag ndax ku ne ràññee na ko ci bisu Baye Ass Ngom yi lu Baye Ass Ngom mën a am ci àdduna bis bu mu mën a am annulé na bis boobu day ñëw ànd ak moom ci bis boobu mu doon ku baax démb la ñu woo wallaahi laasim daanaka lam ñu jox defar na bis bi te bis bii nag woote ko ñun ngir lu ñuy def suñuy poos woote ko ngir dara waaye bisub Serigne tubaab bii képp tax ñu di ko woote ndax mbooloo ko woote fukki dërëm bi gën a tuuti kenn du ko jël di ci dem di ci naani kafe lu dafa jëm ci liggéey Serigne Touba bi kon bis bii lépp lu ci waay def giñ naa ci borom tubaab sëriñ bi rek a lay fay ndax moom am nag pay ñemewul bor kon lu ci waay def rek Serigne bee tax nga def ko defuñu ko ngir wayaan defuñu ko ngir dara déedéet ndax ba ñuy dàkk ay nag di ko yóbbul sëriñ bi booba ñun ñëpp suñuy wayjur a ngi nii duñu mën nañoo seede booba giñ naa ci borom Touba mënuñoo am 1000 francs yu dajaloo ba ñuy njëkk a jox sëriñ bi suukaru koor paquetu suukar la yoon wii lan daan jaar ak fanweer ak juróom kon loola lu yàgg la ba tey ñu koy yóbbul ay ton ba tey ñuy dàq ay nag ak giléem di ko yóbbul ba tey ñuy takk ay millions di ko yóbbul ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba jëm ñu booleel kon bis bi loolu yi képp moo ko tax a jóg docteur Jibril ñu ngi lay santaat bu baax lii ngay wut yàlla ko sëriñ Touba defal man mii mat naa ci seede te booba mbiri melagul nii li ma bàyyi as wax léegi déema ko am na ci mairie koo xamante ni keroog ba mu duggee ci këram ñun ñoo toogandoo lekkandoo keroog mu ne ko sëriñ bi lenn képp laa bëgg mooy damaa bëgg a doon maire keroog Cheikh Bada mii dañu ko bis ni ki tey sëriñ Baara dina la ko def nee na loolu nga defaloon kooku moom la lay ñaan ngir jëmmi Serigne Touba nga defaloon ko docteur Djibril saar mii propagande lu ñu kenn barke Cheikhul Khadim ndax ñun Serigne bi dañoo teral Serigne Touba daf ñoo teral ba noppi ndax ku ñu xam ñun xam ñu waaye nag jëmm ji dañ koo yéene ndax démb li mu def dafa rëy ci ñun barke Cheikhul Khadim ci taw bi la ñu woo nu ñu ñëw leen ma jox leen lu defar bis bi kon ñu ngi koy santaat bu baax a baax Abdou Karim Touré mii moom tamit day jàmbaar te bëgg bayaas Abdou Karim Seck moom it di xaritu Baye As Baye As Ngom mii nga xamante ni ndax magi baay As maanaam moom magam xawma rakkam mooy ànd ak Baye As Ngom Saliou Seck ku ko xam xam ni moom dafa bëgg Baye As kon moom ci kaw bëgg googi moom tamit la ànd ak Baye ba tey mu taxawal mu ñëw fii nii ànd koog ñi nga xamante ni mbooleem oto bu paan jëm ci màggalug Serigne Touba gi ñoom ñoo lay taxaw ba bis ba loola lépp mat ba kenn du jaaxle ñoom ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla sama borom defal leen tawféex seen i tànk ñëw ak tànk dëpp yëpp muy sëriñ Touba defal leen ko muy ay yiw ci barkeb Seexul Xaddim waaw. vaas yi nga xamante ni ñun ñëpp dañoo nar a màggali Touba waaye ñun ñi nga xamante ni yàlla sa borom dogal na ñu am ay oto wala sax ñuy dugg ci oto yi ñoom ñu jaayante seen diggante ak sëñ tubaa ba ni mbooleem loo xamante ni tey ab oto la bu war a dem yàlla sama borom dogal ab ndog-ndog ci yow ñoom dinañ la taxaw ba tax na Cees gii la ñu nar a màggale ba mbooleem oto bu jaar ci biir dëkk bii am benn paan bu nekk ci yow ñu saafara ko ba nga mën wuy wuyu ji wooteb sëriñ Touba bee ñuy ñuy wax ni nag mbooleem koo xamante ni rek tey bëgg nga leen a jàppale ndax buñ fi toogee lépp lu war ci màggal gi ñoom war naa ñëw ci ñoom des fois yi ñu am pees yoo xamante ni soxla nan ko te boroom koo kii mënu koo lijjanti ñoom ñii ñu war koo lijjanti ak ñun ñii ñu war koo lijjanti kon ñoom it nu leen waaye mën a jàppale ñu jàppale leen ko ngir yàlla ak jëmi Serigne Touba. waa ànd soppi Thiès moom ñun li ñuy wax ci ñoom du bari ndax ci ñoom la ñu bokk ñooñu moom dañuy santaat rek ndax liggéey bi ñun ñoo ko bokk ànd. SG léegi la fi jóge muy Moussa Ba Serigne Diop mii nag di taalibe sëriñ bi ndax kuy aaye war sa moome. ñun sëriñ xaadim loo gaydel moo ñu defal lépp lépp lu ñu amit moom moo ñu ko defal moo def ci ñun li ma ko waxoon daaw jéeg laa ko wax yaa def ci ñun lu sunuy ndey mënul woon ci ñun samay bàjjen a ngi nii toog bu ma waxee lu dul dëgg nan ni ma dangay ngay fen moo def ci ñun it lu suñuy bàyyi mënul woon kon ñun lu mën a xew ci àdduna sëriñ xaadim loo gaydel rekk la ñuy sant sëriñ Diop mii moo waral tey bis bi ñu dara jaale ko def ko parrain bi moom mii ndax yàlla sama borom dafa dogal mu ubbi ab parkin boo xamante ni mu ngi ko tuddee teraanga business automobile waa kër borom ndaam ma ngi ko am fële ca Sofraco mbooleem ku bëggati oto ci dëkk bi moo xam da koy luye moo xam da nga koy jënd boo jokkoog moom ci kattanu borom ndaam di nga ci am lu sedd sab xol ndax ñun kat balaa ñoo dem di publicitéel kenn ñu ñëw publicitéel ko moom mii moo ñu ko gënal fuuf kon sëriñ ñu ngi santaat bu baax ci taxawaay bi lépp sant nan waaw Lamine mii nga xamante ni yéen ñaar du ngeen benn jëmm du ngeen ñaari jëmm kenn jëmm ngeen ndax fu nu gis Lamine keroog ba nuy ñëw ci yow dañ ko faa fekk moom mii muy seede ci ñun ci lu baree bari ndax bi nuy yóbbul sëriñ bi addiyey màggal gi rek moom mii bokk na ñi ko nangu muy jàmbaar te bëgg sëriñ bi lool jëwrin yëpp ñu ngi leen di siyaare sëñ ma sàmb ñu ngi lay siyaar bu baax sëñ ma sàmba ba jógee ci sëriñ bi ndax moom buñ ko gisee rek mel na ni sëriñ bi la ñu gis ndax ki la ci sëriñ bi mooy sëriñ bi ci yow te moom mii moo ñu sëriñ bi kon sëñ ma sàmba ñu ngi lay siyaare bu baax la jox sa wàccuwaay diko def Omar jeurin da bax fay yeen ñep ñu ngi leen di siaré bu baax ndax dafa guddi waye bu nu sañoon kaddu gi day giñ naa ci Sëñ dinañ tuddu mbollem ku fi nek Baye as ngomit ay soppé maké xaritam ñep tew nañu ñoom ñep tew nañu sant nan bu baax sama bajjen bi nga xamni mom lañ def marène bi mok sama baay bokku nday ak baay la tax ñu def ko ko it lenn képp la muy borom xol wu rafet muy ko xamni rabalé képp kese maanaam bis bi defu defuñu kenn ci yow parrain koo xamante ni wala marraine alal moo tax ñu def la ko giñ naa ci Serigne Touba ndax ñun Serigne beeg ñuy teral mu ngi ñuy defal tawféex ba li liñ ko war a jëfal ñu ngi ko koy yóbbul mu ñu koy joxal Serigne Touba waaye ràbbale gi nekk ci moom moo waral tey jii bi mbokk taaliba yëpp dajee ñu jël ko def ko jox ko jox ko bis bii ni ko yow lañ def marraine bi kon soxna si ñu ngi lay santaat bu baax ci taxawaay beeg délégation bi ndax bari nañu fi ñëw moom mii moo leen fi indi ndax ak mbaaxam ak bëgg sëriñ bi ak bëgg daara ji ak bëgg mbokki taalibe yi kon santaat nan bu baax suñu jëwriñ jële di jëwriñ seex Ndiaye moom it ndax liggéey bii moom it wax dëgg neex yàlla boobaak léegi giñ naa ci Sëriñ Tuubaa noppaluwu ci benn yoon li sëriñ bi bëgg képp mooy ay bëgg-bëggam kon ñu ngi koy santaat bu baax moom jëwriñ seex Ndiaye di sant soxna Ndumbe Ñang mi nga xamante ni moom moo nekkaat ci soxna yi di taxawu liggéey bi suba ngoon guddi ak bëccëg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala sëriñ Daam Saaxo moom mënuñoo bañ ko bañ a tudd ndax moom day kenn si ci sëriñ bi kenn ci Baxdaad xeebul daray Baxdaad lépp loo xamante ni aye nañ ko rek dina ñëw nekk ak ñun ci liggéey boobu kon ñu ngi leen di santaat bu baax sant waa kër Serigne Khadim Lo Gaydel yëpp ndax bu ñu limee rek du ñu matal mën nañoo bañ a juum waaye dañ dul matal waaye képp ku dégg kàddu gi rek jàppal ne sant nan la lépp lu baax lu ñu xamit wax nañ la ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah waa ahlu xidmatul xaddim gépp Cité Senghor ñooy maase di ko sant moom mii nit ku baax la ku am yar la ndax man magatam laa bokkoon classe magatam waxuma magam de magatam labokon bokkoon classe ñu maase waaye bi ñu bokkee liggéey sëñ tuwaa bii sëriñ bi boole ñu man ak mom ndeysaan <laughs> jar na ko <laughs> man ak moom dooruñu ñaar kenn lan ndax bu wax ne ko bis bu ngeen doyee xarit liggéey bi dox bi ma ko waxee sëriñ bi sëriñ bi daniñu kooku de dimbali nañu dimbali ma dimbali sëñ Tuubaa ndax liggéey bi rek moo ma ñor te gis naa ne bi ngeen taxaw ba léegi waxuma la dox waaye mu ngi naaw te lépp ci jëmmam ji la lépp si jëmmam bii la mu nekk nit ku jàmbaar koo xam ne liggéey bi rek moo ko ñor bu liggéey bi xasee ba tàmbali amatul sago ci kenn ak ku mënti doon barke Cheikhul Khadim bëgg Cheikh Ibra lool nag di jàmbaar lool ci liggéey bii ma koy seere suñu mbokk taalibe yi ak ñëpp barki borom tubaa ndax mbir bu xewee bàyyi ma ñëw rek daa am loo xam moom am nga daa am loo xam ni baas kii day jàmbaar docteur di Baay Faal nekk nit ku modeste ndax man fi mu doon damaa xaw a naqari deret xam nga aw melo di siis waaw <laughs> comme ni ko Cheikh Bara di waxee <laughs> waaye moom mii mu am lu bari lu ñuy dindi suñu jëmm yi te ñu mag ko lool waaye ñu jël lépp teg suuf ba jaxasoo woon jaxasoo goo xam ni su ma xawee yëngu wala am na mu mel moom kenn du xalaat kenn ku dul moom kon bu ñëpp teewee mbokki taalibe yi teew ñu am occasion bi dinañ ko sant bu baax a baax a baax a baax di sant Cheikh Bara mi it ndax jàpp gi muy jàpp ci liggéey bi ndax ñun amuñu loolu liggéey bi sunu guddi sunu bëccëg lépp Serigne Touba ko jox. taluñu suñu bopp dañoo jël suñu lépp jox sëriñ Touba boo defee loolu nag gis koo xam mu ngi lay taxaw ngir sëñ Touba di la soññ si liggéey bi ngay liggéey di la xirtal si sër sëriñ boo dee yóbbu at bii mu ne defal ma lii ngir sëñ Touba dooleel ma ko si liggéey bi te am ñu ko yaakaar moom si waa kër sëñ Baara yi jox ko njëbbal topp ci moom ba pare mu yëkkati àddina defal leen ma liggéey bi si liggéey suñ tubaab yi waaw moo ko jox ñaareelam waaw Serigne Modou Kara Mbacke barki démb la ko jox waaw soxna Oumou xam nga kon kooku kilifa la mu jël loolu teg suuf daanaka président yi mu rëfaloo ñun ba ñun dañuy xaw a tiit waaye moom day fàtte moom dara ji ko Serigne Touba defal nga xam ne ku ku yor sëtu Cheikh Ibra Fall yotu yor sëtu maam Thierno Ibrahima Serigne Modou Kara woo ko alu Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko jox naa la tey sama sama doom may naa la ko soxna loolu du ndaw te daje lépp teg lépp suuf suñuy def liggéey suñu liggéey moo ñu ci mën moom ci liggéey Sëriñ Tuubaa yi bëgg Sëriñ Xaadim di ñu ci soññ fu mu toll di ñu ci soññ fu mu toll naan leen jël leen seen taal bi nga yóbbu ko seen ruuk seen denc ko ndax dëkk bi dafa xaw a jaxasoo kon mu ngi ko seede mbokk taal bi yëpp ni kii ku baax a ngi nii mu ngi nii ku baax docteur moom lu wax daanaka dañ cee munta dool lu bëri waaye sant nanu la gërëm nañu la Virginie ñu ngi sant bu baax waaw sa bàjjen damaa yóbbante si yow nee na Mohamed fii la sa sa baay fi mu leen tegoon. maa koy wax barka Seraam Fall. Cheikh Bada jërëjëf Ndiaye barki démb boo Ndiaye damaa tase moom fii mu yor oto bu ñuul ma arrêté ko ma ni ko yow moo Mori xaw ma yaa moom oto xaw ma moom ko waaye yow dawal avion sax bu waree ci di nga ko am barka yonent bi ndax xam nga la xale bi dafa baax macha dañoo bëgg dañoo tek place dafa xam ñoy kan ki dama koy ñaanal gudd fan ak wër ak xéewal gu sawan baan gu ñepp bok barké que yeneen bi sama doom ji bu amé ñepp am bayam danoo féete woon nag foo xamante ni moom fam fam ne ma sha allah moo fa féete jërëjëf fa kon xamna ni kaddu yi fofu rek la koy yemale jëwrin Omar wax na ni jëwrin Baye Ass yi nga xamanteni tay genn na jëwrin ju ci nek

plus communément appelé Asdia, qui était le fidèle serviteur, fidèle disciple de Serin Khalim Lo, Gaïdel Koumba, Sire Koumba. Asdia est parti, mais il restera gravé dans les mémoires. Paix à son âme, Yal soufou Touba sante yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam gannaaw ba nu sante yàlla julli ci buur bi gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi salallaahu alayhi wa sallam di sant sunu yaakaar tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul di ziar sunu bunt ci yoon yi di sëriñ Xaadim Lo Gaynde di ko ñaan bu yàgg lool te ànd ak wér di ziar fépp fu waay nekk rek fu waay jóge itam teew ci bis bi ñu ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay di am mbégte lool ci ni lancement album bi ni mu bindoo tey niñ ko wootee ànd ko waa xidmatul xaddim wax dëgg yàlla ñëpp wuy suñu ci mbégte rek lañ ci am ndax lañ ca doon mbébét ba tuddee album bi albumu mbégte mi sunu borom defal nañu loolu ba nu ba nu ba nu dajeeg loolu fii ci jotaay bi jotaay bi ku fi ñëw tey xam ne li fi xew lépp tey mbégte la ndax album bi. wax dëgg yàlla biñ koy biñ koy bi ñuy am xel ne bu ñu bu kaset bi tuddee moo naam yeneen tur mais dañ koy tuddee mbégte mi dañoo xam ne li ci nekk lépp mbégte la bëgg ku koy déglu rek di bég moo tax ñu tuddee ko mbégte mi ndax boo jëlee benn morceau tuddee ko album bi bàyyi nga yeneen morceau yi moo tax ñu boole lépp rek tuddee ko mbégte mi. waaw bëggoon naa ko tàmbali mais dama ni damay damay damay def ab jàngat. ndax am na morso bu ci bëggoon a xalaat def ko clip mais dama ne naa xalaat naa bàyyi morso bi daw bu morso bi dawee ci ci ci ci ci ci situation yi ni muy demee. ci ngay xool bi ci gën a am ampleur nga def ko kilim ndax morso yi boo ci jël rek di ko déglu danga naan bii moo dàq moroomam te beneen bu ñëw nga fàtte bi ngay déglu beneen bu ci ñëw rek. waaw album bi euh, pour l'instant am na ñoo ñoo xamante ne dañoo sori. dinañ ko dugal ci YouTube bi balaa yàgg waaye comme dañoo nekk ci déformation kii euh, pour lancer dox dox clé yi mbokki taalibe yi moo tax dañuy bàyyi mu dox tuuti rek bu doxee tuuti ci balaa màggal gi incha allahu rabbi dinañ ko dugal ci YouTube bi ñu ko bëgg a am lépp buñ ko tolloo ñu am ko incha allahu bi buñ dug buñ jógee paasu bàyyi aas mu borom daam rek liñ ci bëgg fekk lépp incha allahu bi dinañ koy fekk ndax am na ñoo xamante ni ñi ngi ñi ngi ba bitim réew am ñoo xamante ni newuñu ci fii ci dëkk newuñu ci fii ci dëkk bi itam ñu ngi ma yónnee message di ma woo di ma laaj nu ñuy fexe ba am ci album bi ñooñu pexe bu ñuy mën a def rek ba ñoom ñëpp mu yaatu ci ñoom incha allahu rabbi dinañ ko def. waaw di sant ak gërëm rek di ñaan it liñ ciy mbébét rek muy muy muy muy muy muy mbégum sëriñ bi yàlla na ko sëriñ bi boole defal ndax li ma wax sànq ci biir woy benn single laa bëggoon a génne bi ma koy jot a génne am lu ci xew ma ne naa ko puus yóbbu ko mu doon album. ñëpp xam na ne liggéey album dafa metti mémoire moo koy def sant gi ñu sant yàlla mooy morceau yi nga gis yëpp amul benn morceau bu ñu ci répété amul benn morceau bu ci répété amul dañuy ñëw ma ne gars yi aywa bismillah ñu ñëw ñu tàmbali ànd kook techniciens yi nga xamante ni mooy liggéey DJ Moustapha Tafa mi nga xamante ni studio lañ defee lañ defee kii bi ak seex mi doon xamante ni mooy yoroon wàllu xiili ñoo ànd ko liggéey ko ak awkat yi nga xamante ni def nañ ci ay coona ndax liggéey sëriñ bi rek la amul benn morceau boo xamante ni dégg nañ ko ci boo xam ne toog nañ répété ko def ci ay yitte déedéet damay ñëw leen ayoo morceau sangam leen di jàng ma daaj ñu leen ni ngeen koy awoo ñu dugg aw su heure heure amee ñu ratifié heure yi ba tax te lépp kon day leen ni baati na ciy dugg moo tax ñu ngi sant Serigne Khadim Lo Gaydel di ko ñaana mu yàgg lool te ànd ak wér album bi li ci ëpp am mbindam la ay bind yu muy bind ku tedd ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu jël ko dajale ko def ko ci benn morceau ci biir morceau yi nga xam ne Serigne bi léppam ku tedd ki la. inshallah way waaye bëgg nañ bu baax a baax yalla ñepp am jam ñi ngi ñi ngi ñi ngi sant bu baax wa Kes TV ci sen directeur elaz wad di sant Lamine mi ak DJ Talla mais buñ tuddé El rek da naka ñepp ñu ci biir wa wa télé bi tv di sant yit Serigne fallu Carrefour media di bëgg fallu yor di sama xarit lool wax dëgg yalla tel tel na ñew pour pour accompagner ci bis bi. ñu ngi leen di sant bu baax di ñaanal télé bi yàlla na dem ba gën a kawe kawe ay télé yi tele télé kii rajo kii it euh, bi nekk Dakar euh, RTS bu bi nekk wetu Palais ba invité nañu fa mercredi damaa fàtte xam nga damaa jàngul moo tax wax nañ ma kii émission bi mais am naa fa émission dix seize heures Carrefour di président bi nekk côté pale am naa fa émission mercredi incha allahu rabi à partir de seize heures. jëm jëm jëm 18h lépp pour yaatal album bi. incha li ci kanam liñ ci war dox ci kanam incha allah dinañ ànd ak ñu ko war a àndal ñëpp dox ko mu mën a fës daj àdduna. di ci ñaan luñ ciy mbébét muy mbégu mbégu mbir yi rek yàlla nañ ci dajeeg moom sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di sant waa Cité Senghor yi nga xamante ni rëccuwuma bi ma leen joxee liggéey bi ñu ñu organiser ko rëccuwuma ko. man ak ñoom benn lan kon ni ñu koy waxoon ci kanamu sëriñ bi rek ñoom ñooy man man maay ñoom da ci beral cant te ngërëm nag sëriñ Xaadim Njaay mi ak Mouhamed Fall seeni taxawaay rawatina Cheikh Ndiaye mii toog nga xamante ni maa ngi moom dañu dañoo séq lu sore sore sore sori muy sama homme de confiance ñu ñu séq lu xóot loo xamante ni du lu ñuy wax ci micro moom xam na li may wax xam naa ko sama secret mën naa ko jox moom ay secret mën na ma koo jox loolu lu ñuy dund la di ko ñaanal suñu borom gën koo taxawal li ngeen bébét ci liggéey Serigne Khadim Lo Gaydel bi loolu ci yéen kàttan gi ëpp di siyaar soxna lu mbekk ak soxna yëpp ak waa Cité Senghor yëpp fépp fu soppi jóge rek am du jàmbe jóge sànq dama mënul wax ci micro pour mën a tudd ñëpp ndax si kër si rek laa bëggoo ñëw doxal ko jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp gërëm na ñëpp yàlla ñëpp am jàmm ci barke ku tedd ki Thiès TV ca kaw ca kanam Carrefour Média ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf